yàlla yàlla dàq fi fitna. xëccoo yeeg ŋaayoo yëpp yàlla ko xëccoo yeeg ŋaayoo yëpp yàlla ko fi yàlla soril yaa rabbi. que les aussi aient plus de retenue et qu'ils évitent toute forme de destruction et de violence. yile bataaxal bàyyeekoo ci kilifa diine yi ci bas bi ñuy amal korité ci réewum senegal doon na lu ñëw ci waxtoom loolee di gis-gisug askanug Sénégal ñu taseeg ñoom ci mbeddu ndakaaru yi. mooy li ñu waree def te def nañ ko yàlla na ko nit ñi dégg. te suñ ko dégg it yàlla nañ ko topp te suñ ko toppee it yàlla na doon njariñ ci suñu réew ndaxte ñun jàmm lañu xam ci jàmm la ñu mos a sax ci jàmm la ñuy dëkk te ci jàmm la ñuy dëkk ba faw ay du yem si boppu borom. lu ndaw li ngay xeeb mën na indi lu rëy. kilifa gii di El Hadj baaxum Bakhoum moom itam di rafetlu kàddu yi bàyyeekoo ci yële imam. suñu toppee li xaw si àddina bi yëpp rek dañuy daal di juum te def naa ne suñu Sénégal bi jàmm rek moo fi xaj. te gis naa tamit jeunesse bi li leen gën a war a yitteel mooy jàmm ci dëkk bi. taskatu xibaar bii di Birahim Touré moom itam di rafetlu yi la kàddu bàyyeekoo ci guide religieux yi teg ci itam di sàkku ci sénégalais yi ngir ñu moytu lépp luy xeetu fitna. dañuy wax peut-être ci korité wala ci tabaski waaye li wóor mooy ilimaan ci korité ci tabaski ba ci ajjuma ci biir jàkka yi dañuy joxe li nga xam ni moom mooy euh, ci wàllug euh, li ñuy liggéey di wàlluk information dañuy. sukkandiku ci xibaar yi nga xamee ni am na wala lii xew-xewu jamono Ilimane rôle lay joué buy wax sénégalais yi dellu si leen ci jàmm rôle la. bu weesoo woote jàmm gile kilifa diine yi itam sàkku nañ ci sénégalais yi ngir ñu gën a ñoŋal li nga xamante ne mooy valeuru réewum Sénégal.